auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim waaw kon tey dañu ñëw eh, àggale faratay tiim yi nekkoon bu nekkee teg ci sunna yi ñoo xam tiim ay farataam juróom-ñett la ñu tuddoon ci yéene muy benn ak pak wala bi ngay tiime mooy suuf si wala lu xeeto moom ta soppi woon ko muy ñaar so se gi maanaam loo def nga gaaw defaat ba ci topp tiim moom weesu wut masa kanam ak masa loxo mooy booy tiim ni ni tiime mooy da jël sa loxo teg ko ci la ngay tiime mooy suuf sa wala leneen boo ko yëkkatee nga daal di sa kanam bam daj mooy raay ko sa kanam bam daj boo euh, masa kanam gi noonu bam daj nga tegaat jëlaat sa loxo tegaat ci kaw loolu boo noppee masaa say loxo mooy tàmbalee ci baaraami bëccëg ku jar yi moom mooy farata waaye daal jàllaale tamit continuer ba àgg ci ya xam kon benn masaa bi ngay boole li eh, tàmbalee ci baaraami bëccëg ku jar yi waaye tamit da ngay continuer waale ba àgg ci conc ya tiim boobu noonu tiim moom noonu rek lañ koy defee xam yomb na. kon sësale ñaar yooyu mooy masa kanam gaaw ci sansi nga naa di masa loxo sësale googu farata la bi ci topp mooy teg bu njëkk bi ngay teg sa loxo ci la ngay tiime teg boobu tamit farata la kon farata yooyu lañ jotoon a jàng kon dañuy wax ne bi ci topp ci farata yi mooy masa sa kanam massa kanam farata la ba tey say loxo ba say tikku jara baa fi tak takk montur baa fi ni takk lam Euh, loolu tamit farata la xam booy masaan foofu ci ngay jàllale ci ngay jàll continuer wale li ca topp tàmbale ca foofu ci di ko jare ba ci conce yi kon benn masa bi rek lay doon waaye waaye day am ak tàqal ndax masa loxo yi ba ci tëkk jare yi moom farata la te daal ci tëkk jare yi ba ci yi nag loolu moom masa ko sunna la danañ ci ñëw kon faratay bi Euh, juróomeel mooy massa kanam gi bi ko juróom mooy massa loxo yi ba ci tikku jara yi ci bi ko ñaareel mooy jokkale tiim gi ak la la taxoon di tiim maanaam boo tiimee ngir julli tiim gi ak julli gi sasaloo maanaam boo tiimee ci sensé rek nga daal di taxawal julli kon boo tiimoon toog ab diir bu yàgg te julli rek tiim nga day yàqu kon faaw nga tiimaat kon wut na ak jàpp ndax jàpp moom boo ko defee lu mu yàgg-yàgg saa bu waxtu wi jote bu fekkee jàpp ma tëju di nga mën a julli tiim nag moom faaw jokkale tiim gi ak la taxoon di tiim kon loolu mooy juróom bi bi ko nag mooy waxtu wi dugg waaw tiim bokkoon ci farataam waxtu wi ngay tiimal waxtu wi daal di jot waxtu wi dugg mooy waxtu wi jot moom da nga doon tiim ngir julli tisbaar Eh, waxtu wi tisbaar waxtu tisbaar daal di jot <coughs> waaye boo tiimoon avant waxtu wi jot tiim ko du baax to tamit gis nga foofu wut na ak jàpp ndax jàpp mu boo ko defee waxtu wi lu mu yàgg yàgg bu ñëwee da jàpp mu toju toju da nga mën a julli boo xëyoon suba rek ci misaan nga jàpp boo demee ba tisbaar jàpp mu suba moomu jàpp ma nga jàppoon ci suba dañ ko mën a julli tisbaar te bu doon tiim nag loolu doo ko mën tiim moom daa bokk ci ay farataam waxtu wi ngay tiimal daal di daal di jot kon loolu mooy faratay tiim muy yéene paak wala bi ngay tiime sësale kanam geeg loxo yi teg bu njëkk bi ngay teg sa loxo ci suuf masa kanam masa say loxo say tikku jara jokkali tiim gi la di tiim ak waxtu wi tàbbi loolu mooy farata moom ñett njëkk mooy tartiib maanaam tegale tegale njëkk masa kanam teg ci masa loxo ndax tegale googu kanam teg soog a loxo yi de tegale googu sunna la kon boo njëkkoon masaa loxo yi ba pare soog masaa kanam gi du ci yàq dara waaye nag kon bu baax defoo sunna si bi ko ñaareel ci sunna yi mooy teg bi ngay tegaat sa ci suuf li nga ko tiim boo koy def da ngay njëkk a teg sa ci suuf wala li ngay tiime boo ko yëkkatee masaa sa kanam ba daj nga daal tegaat sa ci suuf tegaat boobu nga koy tegaat mooy deuxième teg bi loolu sunna la waaye ci ngay moom teg boobu ci ngay loxo yi tàmbalee ci baaraam bi ci tëkk jare xam mooy farata kontine wale waale masaawaale ba ci coñcee xam loolu mooy sunna kon tegaat sa loxo ci suuf baa ci li ngay tiime tegaat boobu sunna la bu ko ñetteel ci sunna yi nag mooy masaa li dara ci tëkk jare ba ci coñce yi ni mu ko waxee woon masaa baaraam bi ci tëkk jare yi moom lool farata la ci tiim ci tiim farata la la dalay fa foofu mooy ci tëkk jare yi mooy fi ñuy takk montre wala ci kut bi te da def foofu ba ci cooñ ci am ba mu masaa ko loolu moom sunna la ci kon loolu mooy sunnay tiim njëkk def kanam ba noppi soog a def loxo mooy tegale gi tegaat bi ngay tegaat soo loxo ci suuf ba ci la ngay tiime am ci ngay masaa loxo yi ak masaa tàmbalee ci dëkku jaare ba ci cooñ yi.